aousu billah bismillah in waliyela aousu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk jullit yi mbokk taalib yi ñuy bàyyi xel ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax xam ngeen ni ñoo ngi fii ci kër Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nuy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye xam ngeen ni ci siyaar bii nga xam ne fédération Ahlou Café baaxoo nañ ko def at mu jot ci njiitul soxna maam Issa Mbacké njiitu fédération Ahlou Café ren jii nag sa borom dogal Serigne Mountakha Mbacké Bachir soxna si bokk ci ñi mu yóbbu Makkatal Mukarrama ngir mu siyaare ji Baytil Haram waaye terewul nag yitte ji nga xam ne soxna si daan ko def mu jébbale ay xar yi at mu jot terewul fédération Ahlu Café àndandoo mbooloo mu takku ci njiitul soxna Euh, soxna Ndeye Sey Nabou Mbakke di rakkam ak soxna Ayda Mbakke ak soxna Maam Jaara Mbakke ak mboole mbokk yi ñu baaxoo àndal ñoom ñëpp ñu teew fi ak soxna Faati Anta Touré ak Serigne Abdoul Ahad Dieye ak mboole mbokk yi ñu daan àndal ñëpp ñu teewaat ci kanamu Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbakke Bachir ngir fas yéene jébbale xarit tabaski yi mbokk yi gis ngeen mbooloo mi noon ni mu takkoo kon noo ngi xaarandi sëriñ bi incha allah lépp nag ñu ànd ak Serigne Cheikh Mbacke Samb incha allah dara doon tëdd ci siyaar général bi nga xam ne fédération Ahlu Café baaxoo na ko amal at mu jot nuy ñaanal nag suñu jàmbaar ja soxna maam Issa Mbacke sama borom yàlla yóbbu ko fële ca Makkatal Mukarrama waaye dellu soit ko fii nag ci Sénégal nu teeroo ko ci jàmm ak salaam teral ko ànd ak moom ziar boobu ñaan sama borom yàlla nangu lépp lu mu fa waaye nag ñaanal Serigne Mountakha Mbacke Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi kon dig daje ak Serigne Cheikh Mbacke Samb moom Mortala Kane fii ci kër Serigne Mountakha Mbacké Bassir siyaar général bu Ahlu Café mbokk yi jërë ngeen jëf mbokk yi kon jërë ngeen jëf ni ma leen ko diggee woon léegi rek ñi ngi fii ci kër Serigne Mountakha Mbacké Bassir mbooloom fédération Ahlu Café bi ñu ñëwee tam Serigne Cheikh Mbacké mu Serigne Abdou Latif dafa daal di yëgle ni na Serigne Abdou Lahad Gueye ànd mbooloo mi ñu ñëw dugg si ci saal bi ngir bu sëñ bi génnee rek ñu mën ko jëbal seen liggéey kon na kàddu yooyu dañ ciy teewlu Serigne Abdou Lahad Gueye mu yëkkati kàddu yi nga xam ne mooy bàyyi ko ci soxna maam sa Mbacke jëm ci mbooloo mi waaye bàyyi ko ci fédération Ahlu Café itam jëm ci mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel jamono ji kon sëriñ Cheikh naan da sëriñ Blaat sëriñ Blaat gannaaw bu ñu la nuyoo siyaar la yéen kàddu ngay dénk mbooloo mi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di sant baax di nuyu sëñ Cheikh di nuyu waa presse bi yëpp di leen sant ci teewaay bu rafet bi di sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, sant Cheikhul Khadim di ñaanal nag Cheikh Mamadou Mountakha boroom jëf yu baax yi yàlla nag suñu borom yàggal lool te may ko wér defal ko mboolem njaboot Serigne Touba gi yëpp. ni nga ko waxee nag tey jii soxna si ma nga ca Makkatal mu karam waaye mel na ni tam mi ngi fii ndax rakkam yu baax yi di soxna Ndey Seyna bu Mbàkke di soxna Ayda Mbàkke di soxna Maam Jaara Mbàkke di soxna May Buso ak mbooleem njiiti daayira yi e, ak ñi mu àndal ñëpp xale yi kafe gi Eh, ñoom ñëpp teew nañu fii tey ci Daaru Minaan ngir liggéey bi nga xam ne aada woo nañ ko jébbale eh, su tabaski desee ay fan te mooy dagg kart maam jaare yi eh, ak soxna maam jaara Mbàkke soxna Ayda Mbàkke ak soxna May Buso ak mbooleem njiiti daayira yi ñu ñëw indil ko liggéey bi di jottali itam ay cantam ak i ngërëmam di ko jaare ci suñu jëwriñ ji sëriñ Cheikh ab Latif ndax moom nga ñu booleeloon ci liggéey bi Mbàkke di la xamal ne waa ahlu café mbégte muñ fi daan ñëwee rek ren la raw ndax jëf yi nga jëf ci soxna maam Isa muy yóbbu ko màkkatal mu karam dafa mel ni waa ahlu café yëpp nga ko defal kon nag mbàkki ñëpp nga lay sant di la gërëm di la ñaanal gudd fan gu ànd ak wér li nga yéene lépp ci liggéey Serigne Touba nga àggali ko ni nga ko bëggee suñu borom defal la la Serigne baa amoon sarsaara ajran kabiran wa sawaban wa jaza wal wax du lii fii ramadaani na jaza ñu ngi sant baax tey ñaan liggéey bi nag mbàkki mi ngi yokk bu baax a baax ndax daaray maam jaare yi bi biñ fi mujjee mi ngi tolloon ci junni maam jaare ak juróomi téeméer léegi àgg nañ ci ñaari junni maam jaare yoo xam ne ñu ngi jàng ci daara yi ren gi am na fukk ak ñaar ñoo xam ne mokkal nañ ba tare alxuraan ba tàmbalee jàng xam-xam daayira itam ñu ngi ci téeméeri daayira ak juróom-ñaar fukk ak ñaar kon nag li nga ñaanoon muy yokk loolu am na kon yow itam ñu ngi lay sant baax di la gërëm ci loolu yi tey ñaan nga dolli ñu rek ñu sax ci bëgg Serigne Touba ak wóolu Serigne Touba ak liggéey Serigne Touba ndax liñ bëgg àddina ak àllaaxira loolu képp ñu koy may jéego yi nag ak jëf ji lépp def nañ ko muy addiya di ñaan yàlla guddal soo fante wér sa jër luñ ci amee ci tuyaaba rek Mbàkke ñu ngi la koy ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ci barkeb Serigne Touba jërëjëf sëñ Lamp jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Lahad mooy waa kër soxna maam Issa Mbàkke sëñ Abdou Lahad sëriñ bi dafa ne maanaam sant na baax ci taxawaay bi ak yitte jàpp bi ndax xam na ne nii rek ngeen àndeek soxna Mame Issa ndax maanaam am na mbégte lool ci jiital ngeen ko jiital ngeen topp ci gannaawam kon na nga xam ne loolee sedd na xolam guy waaye dal na xelam waaye dool na yaakaaram ndax pësteefam ak yitteem loolu war na loolu moo waral yitteem moo waral mu yóbbu ko fee ca Makkatal Mukarram kon nag meen mi ngi leen di gën a ngeen mel ni ñaan yéen ñëpp suñ borom dimbali mba dajee tawfeex sëñ Tuubaa seen lépp yomb seen lépp gën di yëwén seen lépp gën di barkeel ñi ci saal bi na ñëpp tàllal seen ñëpp tàllal seen loxo ba subaa ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaar ginnaaw bi nu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaanalaat Cheikh Mamadul Muntaxa yàlla na ko fi suñu borom doole yàgg lool te may ko wér te yàlla na ko defal njabootu Serigne Touba gépp ñu ngi leen di nuyu nag ci turu soxna si mu bàyyi fi ay rakkam di soxna Ndey Seyna bu Mbàkke moom sëriñ Modou Faty Khary moom sëñ Mazamba ak soxna Ayda Mbacke moom sëñ Abdou Aziz moom sëñ Baara ak soxna maam Jaara Mbacke moom sëriñ Gaawaan moom maam Thierno Aïcha ak soxna May Bousso moom Baye Cheikh Bousso ak ñi nga xam ne ñooy soppee soxna si ci njiital suñu yaay soxna faati Mbeng ak ñi nga xam ne ñoo aju ci xale kafe gi muy sëriñ Daam Kafe ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk liggéeyu bureau bi muy sëriñ daam Kara sëñ daam Diop sëñ aliyu saar sëñ Góor Yàlla Mbay sëñ Bamba Ndiaye sëñ Sang Diagne sëñ sàmba Fall ak mboolem ñu ko séqal ñëpp bay Daam ñan sëñ Maamun ñoom ñëpp ñu ngi nii teew ah soxna si nag li ñuy wax ne picc a nga ca kaw waaye xel maa nga ca suuf moom ma nga ca màkkatal mu karam waaye xelam nag tey mi ngi ci liggéey bii ndax bi nu xëyee ba léegi mi ngi woote di laaj ni mbooloo mi ñëwee waaye xam naa buñ ko yónnee image yi ba mu jàkkaarloog moom xolam dana sedd lool ndax daayira yépp def nañ mobilisation ñëw nañ tam teew teewaay bu rafet ñi nga xamante ni bii dañoo war a dagg carte maam jaara dagg nañ ko ñi war a joxe xarit tabaski joxe nañ ko ñi war a dagg ay carte membre ñu ci bari dagg nañ kon nag loolu ñu ngi leen ci ziyaar bu baax a baax a baax di leen ci gërëm bu baax di xam ne nii rek la ndax bu soxna si demoon mbooloo mi wàññeeku walla jëfi mbooloo mi wàññeeku loolu ci nattukaay yi borom xam-xam yi day niru njistal waaye nag bu soxna si demee ñu gën a yokk suñuy pëstéef gën a jaaju ba la daan def lépp ñu def ko nu raw nañ ko daan defee kon du ñu man lu may sant yàlla bu baax a baax a baax a baax turandooyu maam jaara itam ñëw nañ ci njiital soxna maam jaara kare ak maam jaara sindidi ak ñi ñu àndal ñëpp ñoom itam ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm bu baax a baax a baax di santam suñu magi taalibe yi nga xam ne dañoo bàyyi koo fu soree sori mel nii bàyyi alaaji ñang nii jóge xombal ak suñu bàyyi yu baax yi nga xam ne demoon nañ ba àgg ci waroon na mën a joxe ngànte joxewuñ ko ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm bu baax a baax te di leen ñaanal di sant tam waa banque islamique ndax dafa am suñ bokkum taalibe mu ñuy wax sëñ Mahmadan Fall muy doomi ajaratu jumaa ñang di liggéey banque islamique waaye waa banque ba at mu nekk dañuy joxe ñaari xar ñaari xar yooyu ñu daan joxe itam ñëw na ba boole nañ ko ci liggéey bi kon ñoom itam ñu ngi leen di beral cant ak ngërëm di leen wax ne seen addiye egsi na yàlla na ko sëriñ Touba nangu te ful ko ci barkeb Serigne Touba li ci des nag mooy ñu yokk góorgóorlu te xam ne tam am na yeneen yu nekk suñ kanam la ca jiitu mooy yéen ña njiiti daayira yépp nag loolu moom du waxu soxna si waaye man sama wax la ak waa biiru bi nga xam ne ñun ñoo jàppale soxna si ci liggéey bi xam ngeen ne soxna si sëriñ bi daf koo yóbbu ren màkka ñu ngi ñaan mu dem ci jàmm te ñëw ci jàmm su ñëwee itam incha allahu taala fas nañu yéene ñun waa ahlu café laay wax waxuma ne soxna si mooy ganale boppam waaye ñun waa ahlu café ñun ñoo ko war a ganale kon loolu maa ngi koy wax njiiti daayira yëpp di ko wax soppe yëpp di ko wax xarit yëpp di ko wax am di jàmm yëpp su yàlla dogalee muy ñëw danañ ko yëgle fu fi ab daayira nekk bëgg nañ mu teew fuñ koy defee tam danañ leen ko leeral ndax loolu teel na waaye suñ ci àggee danañ leen ko wax waaye dañ leen koy junju ba suñ leen ko jotulee fekk waajtaay wi lépp ñoŋ na ndax dañ ko bëgg a def muy bis boo xam ne dañ koy tuddee bis bu ñuy sargal Cheikh Mamadou taxaa ndax moom kat kilifa yu baax yi di jiitu woon yëpp sargal na leen ndax sargaloon na fi sëriñ Massamba sargal fi maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine woote fi bisub sikkar woote fi bisub xasida kon nag moom itam ku liggéeyal sëriñ Touba murit yee la war a fay kon jëf jii mu jëfal soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe su demee bay ñëw ñun waa ahlu kafe nañu fas yéene sargal Cheikh Mouhamadoul Mountakha daayira bu nekk la nga man bul ko xeeb na nga ko indi incha allahu taala balaa soxna see ñëw di egsi fekk ñun ñi fi des lépp lu jëm ci wàllu ngan gi lijjanti nañ ko ba soxna si bu ñëwee du def lu may ñëw rek ci mbooloo mi noonu man laa ko bëggee te jàpp naa ne tam woote boobu ma leen ci wootam da ngeen ñu ci wuyu ndax xam ngeen ne bërki démb nee naa leen sëñ Muntaxa bu yóbboo soxna si màkka mel na ni ñun waa ahlu kafe yëpp la yóbbu màkka kon nag kenn ku nekk ci ñun na jàpp ne daa war a ganale soxna si nganu boppam suñ ngan yooyu ñun ñëpp nag suñu ko boolee day nekk doole joo xam ne bu soxna siy ñëw dama naan ko mbàkkee yow dara bu ko jiim waa ahlu kafe li nga war a def lépp def nañ ko loolu nag la ca gën a gàtt rek te ma bëgg koo lancé te ñëpp yóbbaale ko mooy képp koo xam ne dangaa ngaa bokk ci ahlu kafe lépp lu jëm ci wàllu ngan gi bu dee daayira na laaj membre bu ne benn ñaar téeméer képp suñu ko dajalee bu nu ñëwee indi ko ñu dajale ko waa bureau bi soxna si ñu ne ko yow toogal rek mbàkke waa lu ko fe ñoo lay ganale ku man lu ko bu nag nga def ko ndax yéene yi moom mi ngi fi ak bëgg gi kon nag li ci des rek mooy ñu ñu ñu jiim ko te ñu ko jiimee danañ ko man nañ ma may ñu yor